ku doon ku ndang doon ndondon su ma amoon avion tey ma may la ko di la dawalal fa bëgg nu dem fa lii bu la doyul wax ma lu lay doy tu ndong tu ndong dong ndondon dong bëgg naa loo kaay nu wëndee loo ndong tu ndong dong dong bu ma amoon avion tey ma may la ko di la dawalal fa bëgg nu dem fa lii bu la doyul wax ma lu lay doy tu ndong tu ndong bëgg naa la kaay nu wandee la dong dong ma amoon avion tey ma la ko di la dawalal foo bëgg nu dem fa lee bu la doyul wax ma lu lay doy dong dong dong dong naa la kaay nu wandee la dong dong loolu yëpp dafa bëri dégg nga li ma way tey li ma sañ sa ah to to to la xool mu baax rek non tey da ngaa dellu démb da ngaa def sama nin yow mën nga lii mën nga lii léegi nag lenn laa bëggoon hmm. nga jox ma trois cent mille ndax damay dem defi shopping shopping shopping Saint Valentin ndax février bi moom bëgg naa le premier ba le vingt huit ma def rouge noir jox ma damay dem yow laa doon yow accompagné ci rouge noir gi moo tax ma def nee ma def di xanaa gisoo ma la casquette rouge ñu ne ndeeta waaye ma dóor ci karawaat kaay na ma wax la leen deux traits nag <laughs> dóor ci bëratel ñu ne ndeeta waaye ma naq ci place ba xonq coy xanaa ma la fekk ci CLT. këccër la wow le ku këccër la baaxul koo xam ne mel na souterrain nag sama biir bi day jéeg saay ballonnement bi di di vivre gis ni muy jooye ma petite mouche ça va chérie ça va appel bi urgence na de Saint-Valentin bi ren foo mënu ko foo mënu ko wala mi ngi existé man na xam nga lii sama problème euh, Saint-Valentin daf may yóbbu ci xam nga je suis veuve je si veuve ben noir euh, je souffrir lu ma bëgg wax foofu mooy ça veut dire à la veille de la Saint-Valentin d'année passée la dafa amoon ñu ma si vivre lu souffrance parce que xam nga sama jabar si la mortel accident la ñu am la veille camion jaar ci kaw mu émérite si saa si quatre partage quatre parties man si laa xamee sax parce que waa chapeau dina ñëw naan la corps partage quatre parties si la xamee nag te corps quatre parti la benn parti bi ca rond waa waa mètre carré nag ñi ngi jaay ay terrain yu baax ay kër yu baax ñoom seen alo du sax ñu ngi ko fay publicité jox ma 300000 damay dem defi shopping wala nga may ma sama baat damay ñibbi sama kër yaay. xam nga lu mu doon xam xam bi nag du dafa ndànk dafa ndànk rek xam nga lu mu doon. bay foo laajee 300000 laaj baat 300000 at baat bokkunu xàmmeel 300000 xàmmeel baat. muñ bi laa mënatul. bu dee rouge noir nga bëgg mën naa dem marché Tilène wala marché Salem fu fay rouge noir da jaay moo xam popeline ma mënoon indi la ay rouge noir waaye may bu ma may de. pour nga jën dem jën li ma sa fëgg jaay yi man vêtement du marque laay sol jox ma xaalis bi ma dem wala nga wax ma lu lee létt ma baa nga. fi man fan laa jëlee 300000. kon may ma sama baat. may ma sa bala. damay ñibbi mënatuma laa muñ. may ma sa bala. muñ naa bay sama baat may ma ko damay dem. yow foo jëm. sama kër yaay. Eh, xam nga eh, xam nga lan lan la xamel ba ca yam aw ma ko gis aw ma trois cent mille yu may joxe aw ma ko. amoo ko ok. aw ma ko sama baat. ban baat lay may damaa am baat bu ma may. nga vocal ma ko dégg nga. Eh, yow lay def nii. bësal fii. yow doo taxaw. ak li ma sañ sa lépp ci rouge noir nga lànk de. <laughs> barke laaj man yi yëpp ginnaaw ba dee naa ci biir kër gi. ku dee loolu kenn waxatu ko Touré. Touré Maysa nag man ba ma lay xam ba tey ba may naayaa ba tey di xam ture Maysa. ah neel benn. fulla jom ñaar. ci fayda bi. Touré ci loo ŋànk dootoo ko bàyyi. ma ko doon samay ci gore gi nga gore. ah Touré maa li jàmm la ci yow. loolu kenn waxatu ko te xam nga lu ma neex ci yow. loo matt doo ko bàyyi. waaw naa yàlla lan ngeen moo def pot de fleur sama kanam boo xëyee suba toog mel ne pot de fleur. wuyu ma di wax di wax loolu ba tey yeggaguñ fa ginnaaw ba yow rey nga ma sa biir kër tey damaa bëgg rek nga may ma sama baat ci silence ma daal dem sama kër yaay saraxal fa sama bopp sama juróom-ñetti fan woo samay sponsor privé ndax jël sama jaxal. néew bi dekki na nag. man nag mu xamoon naa néew bi day dekki xam nga lu tax Yves Braay wax na ma ko nee ma bon suñu premier mariage la ne ba mu waxee dama ni jalousie la neewoon na ma doo sëy. taal ngay sëy ndox waaw de. man kay may ma sama baat jëlal sa baat jëlal jëlal. jëlal jëlal. lii bu ma topp nag boo dee nga mel ne fas ni arrêté non man sama juum gi daal ëpp sax ëppal man bu ëppal di am moom man je suis reconnaître man maa ëppal rëy wax menace non man jour boobu session animale la nekk génn sama yaram xam nga nit am na animal am na être humain man moom jour boobu moom c'est animal moom kenn mosul gis gâchette bu ma jël bu bonjour monsieur Touré. mais tamit mais tamit nag si man je suis pas très content pourquoi vraiment je suis pas très content. mais respecter rendez-vous. mais yéen lan moo tax doo leen respecter la rendez-vous. la rendez-vous c'est très important de. mais monsieur c'est la début de discussion. mais certes certes monsieur Touré tout à fait raison mais man je n'ai que ça à faire <laughs> man dama bëgg ay affaires yu may def. dama fi jaar dong parce que parce que am na ñeneen ñu may xaar je suis un consultant international taw toi aussi tu le sais très bien. faut pas m'agacer sur tes vil problème là. waaw rek ah, ah, ah, ah rek attends rek bien nag. je t'écoute. je me lay expliquer que problème bu sérieux man dama am problème divorce. problème de quoi. divorce laa def divorce bi nag matirul prématuré la. parce que discussion bi jaru ko woon naaya jël na ay bagaasam dem na kër yaayam ak papaam te man maa ngi nii je suis resté lii yaa ma ci mën a dimbali. tu sais monsieur Truc tu as fait une erreur extraordinaire d'abord je te pose deux questions lan moo leen jotale ak ban heure la woon. moment bi la terre tourne dans le soleil. Mhm. vers treize heures quatorze heures si sa sama yaram tàng samay neer jóg sans xiif ma ma ma ma divorcé yuuxu ko gëdd ko mën menacé ko léegi nag solution amatul hmm. yow doo nga mën a retrouvaille bi amaat euh, lan moo indi euh, polémique boobu affaire gason gazon lañ doon waxtaane fii ci kër gi man gazon yi nan ko taaye mu ne ko taaye man gazon yi nu taaye bugguma ko Euh, tu as fait une erreur vraiment extraordinaire parce que moment bi nga wax nii pour régler ci problème c'est du yomba weeru mbëggeel tuxe nga jàpp mbëggeel salfane ko jaxat-jaxate ko san ci àll ba saaga mbëggeel divorcé ak sa jabar nga yaakaar ni problème bi noonu lay réglé woon na nga jàpp ni mois bi mois de cochon la du mën a réglé wu problème pour ñu régler ko ça fera trois mois hmm. te février bi du ci bokk parce que weer bi matul weexu Saint-Valentin nga wax ci bégal sa bo sa sa sa jabar di xuloog moom qu'est-ce que c'est que ces manières de Zanzibar encore seddaay ci seddaay bi tuxe ok je suis foutaise rek yére bii nga sol ku ko xool xam ni mbàjju bébé parce que yaa ngi nit di dew ak liw tu es frileux tu vois tu es frileux tu es devenu frileux parce que ki la waroon jox chaleur humaine fase nga tu vois man na joxuma la euh, comment dirais-je euh, duma la rassurer ni la à 100 pour dinaa régler problème bi mais amal on ne sait je ferai de mon maximum pour régler problème bi mais du yomb. di c'est très importance yóbbu ko nga jox ko ko. respecté lii lii mooy confidence bi mooy indiwaat. lii boo ko njëkkee woon problème yëpp du am. na respecté lii. mois de février nga xuloo sa jabar ba ñu ko xam la waaye yéen bàyyi leen di nit ñi médité wu Afrique kenn mënu fee médité kenn du fi concentré rek ubbil bi tëjuma ko ubbil bunt bi Afrique moom am nañ réparation maaleykum salaam ba jàmm ku la tooñ jàmm la du jàmm ah, arrêtez pleurer arrêtez expliquer rek croisal wax ma lan la Hmm? deux jours yi sax fanaanuma sama kër yaay dama nekkoon sama benn kër xarit foofu laa fanaan parce que mënuma ñëw rek dem suñu kër noonu dëkkandoo yeeg yooyu te su ma sama koñ dama fa bari noonu moo tax xalaatuma kenn yow rek laa xalaat ma ne xaaral ma ñëw fii peut-être nga mën maa dimbali su fekkee am nga fu ma mën a tegtal walla fu ma mën a fanaan juste benn laps de temps rek ma nekk fa du yàgg le temps may dem sama kër yaay parce que sama papa dafa tàng xol torop su ma demee rek dafa may delloo kër caamas te bugguma fa dellu bàyyi arrêté de pleurer arrêté de pleurer parce que parce que kaa bu amee kaa moom bu amee mu leen ni la te kaa mu na ko yóbbu ci ndoy baan kon danga koy gérer li ma bëgg nga def ko mooy <coughs> bàyyi jooy eh eh eh, eh bàyyi jooy yaa ngi teg ay xef boo ci boolee di jooy ba say xef dem foo jëm gérer xef yi même bu dul caama sax danga koy soxla feneen bul yàq sa beauté li ma nga def ko mooy Thiam moom cas bii dafa commencé mondial Afrique muy divorce yombal nañu divorce léegi yombal divorce ba kenn xamatul lii lan la jigéen da koy yor sànq ir ko toppatoo ko muñal ko surtout muñal ko mais cari ji wow na laa la divorce lii ñaaw na ba pare nga nekk en zone de la danger fu nekk nga tëddalaan fa di dem passerelle yeeg fu ne nga fanaan man xam naa leen ni ngeen bari kersa bu ngeen divorcé ci ay passerelle ngeen di dem di tëdd ay ban jaaxle ba finalement si ngeen doogay publier seen problème mais alhamdulilah man moom je suis toujours mais être même personne su soyez même ba tey maa ngi fa du ma lii sama devoir ci population bi surtout jigéen ñi yi ne ci jafe-jafe dama leen di yaatu kër gi xool nu mu toll. man kase dama mën a tëdd ci néeg yëpp ub mu ubbi sama xol ubbil ko ñu ne ci ay problème kalmal rek kalmar rek kër gii titre foncier bi man la ak baay bi yépp sama loxo la ne chambre boobu noonu à côté dama ko defoon chambre réservation pour les cas d'urgence cas adopté yeeg partage jëlal foofu nga toog nekk fa kër la déranger rek. xam bëgguma la sonal tamit. yaa ngi tàngal sama xol bi. bul wax déranger. nekku ne looy éviter looy éviter yow boo ñëwul fi fan ngay dem dangay dem nga perdure ah. is ñaata nit ñoo disparaître au niveau fu nekk. Sadik sax moo tax jeunesse réew mi amul réew mi de il faut ñu xoolaat yenn genre am nañu. toogal rek nga calme defal na kër gi sa kër dégg waa Tafa li bëri na de orange money bi ma yónnee la. <laughs> non kaa yi nga toll foog moom orange money la ba pare dama see sawar instant orange money dañ wàcc seen tarif dañ ko wàññi bu baax pour jàppale peuple bi fii may waxante ak yow damay jàpp ci bu baax ci sa situation caisse d'avance laa la jox déroulement la gérer ko sans contrôle def ci lu la neex. del jënd crédit connexion di def lu la neex di vidéo di wane ni téye en paix surtout loolu dee ko fësal del fësal ni téye en paix man nag kër gi xool ma fi xool bëtu bëtu bul ma sax jàppee ku ku ku dund ci kër gi jàppee ma fleur yi ba moquette yi ba njegenaay yi surtout njegenaay yi boo ma xoolee bëtu njegenaay sax damay jël ngay reposer dégg nga bul hmm? sant yàlla bu baax ndax bu gaalu loo ca demee bato ñëw costé yéeg navire rekk a ci des kii de xam naa si dara moom sama ceebu jën yi manqué woon bëggaj yàlla indi li ma bëggaj tey lay bëgg ci kër gi ba ki bëgg ci ñëw ba sama kër gi ay waay man dootuma am jot waaye di génn ci kii kay fi may wax ak yow suba moo ubbi sàncee ci kër gi diggante néegam ak sama néeg foofu bunt am fa te kii jaama yàqu ko de kii ngi fee tell ba léegi te kii li ma jaaxal tubayam yaa ngi commencé teppeeku kii moom réserve kii moom léppam dafa laaj réserve. Tafa maa ngi dem si léegi. Tafa. Hmm? maa ngi dem. foo jëm kër Thiam. déedéet yàlla tere si néeg bi laaj. Ah, ah, ah, léegi léegi. soo ko laaj dara dégg nga. ah waaw man tey soxla laa dara. tu sais Nayo man li ma mënul concevoir mooy nan la nit di yore jigéen ju mel ni yow di ko maltraité di ko souffrir loo. c'est quoi yow jamaa nga le minimum mooy yow dan la war a def ni buux naa yomoo ci réew mi rafet nga dal nga tey nga maandu nga te naya li gën a jafe ci jigéen mooy naya loo togg mu neex te day doy day baaxe mais pourquoi Tafa un sauvage koo xamante ni xamul benn notion ci mbëggeel ak lan mooy jigéen jamaa nga jamaa war a xam ni denrée rare nga jigéen ju baax nga mais non Tafa comme un petit lapin bu naan aphrodisiaque partout caax bi caax bi fo lu mu romb fël Tapha day gambase partout un jour dama koy sermonné man que des fois est-ce que Tapha doo toog ba yàgg nga ruus ci li ngay seet say tubay partout am na jour boo xamante ni centenaire la mu taxaw benn jéego ko fekk yëkkati yëkkati kilo tam imagine kilo fleurette bu rose jox Tapha ne ko yaa ko fàtte kër gi ci laa ko bàyyee àndatu naa parce qu'il n'est pas fidèle. Et moi, je, je ne badine pas avec ces genres de choses. man dama fidèle lii moo indi suñu xuloo man ak moom du xaalis du dara mais dama bëgg góor gu fidèle surtout ku nekk ak yow de ce fait bëgguma ngay nekkaat ci beneen loxo bu dul sama loxo parce que li ma bëgg ci yow man rek maa ko mën a naa bëgg naa la ba fu bëgg di yem te yow xam nga loolu fonk naa la torop respecté la s'il te plaît donne-moi chance dinaa la toppatoo dinaa la tatagal dinaa la def ni buur et fleurs yi nanu na témoigner suma mbëggeel ak yow parce que je t'aime ji bi nga tegal fleur bi ma doo ko wax mais jël ko ak say loxo s'il te plaît fii loo bëgg loolu laay def. instant bi booy dama xam ne Naaya nekku fi ma profité ñëw si kër gi waddal samay toq larme de crocodile tafa tafaature gëm ma nii toppatoo la may def lu ne la may defara ah yow moom ku la xool xam ne am na ku lay toppatoo waa jànk man leen na ma ci jaaxal ba jabaram du la fi fekk. dama kaa faale na fi ñëw ba xam instant bi de kër gi may jeeg bi fii. amul kenn ku ma fi ñëw naan dafa ma yëkkati Tafa nga xam te ni jigéen la bëgg kii ba ma nee salaamaaleykum ba tey si biir kër amatul jàmm amatul salaam damay ñëw def samay baax samay toq rob su ma ñëwee daal ba tourné ba dox ñaari pas Tafa Touré àndatul ak sagom daf may orange woon ci instant bi. nga ne ma kii. Njibi Seye yàgg kañ ngeen dala ànd. maag euh, Tafa euh, je pense euh, jour bi muy jënd say cadeau pour sa mariage. deux jours avant. ci noonu mm. xamante je pense ay côté yooyu la deux jours un jour yooyu yàggul noonu ci circonstance yooyu la ñu xamante. d' mm-hmm. mais jibi daal man jamono ji ñu toll. Mm-hmm. dama décidé woon téye sama xol. Mm-hmm. ba gis góor gu sincère. góor gu dëgg. góor gu am fulla ak fayda am personnalité. ma daal lay jox sama xol mais mënuma tëb tëb rek bëggaat noonu. pourtant mun nga bañ a seet fu sore. maa ngi nii toog wala doyu ma la ci. yow mii jibi daal bàyyi ma ma toogaat tuuti xool. prends tout ton temps bul précipité wu de toute façon man yàkkamtewu parce que gis lu mel ni yow di ko bàyyi muy dem là c'est autre chose. man daal lu sincère laa bëgg lu dëggu lu am fulla am fayda. maa ngi nii toog. waaw baax na dinañ waxtaanaat incha allah. Naya fleur yaa ngi noonu jikko ci sa xol te nga koy xoose s'il façon daal man dinaa xool. Naya je t'aime beaucoup. waa jànk.

woy bi dafa dafa dafa da dañ ko dañ ko tëggaat Beyoncé da ko woy après Shakira woy mooy problème mooy woyaat yi rek réew mi daa jaxasoo àdduna bi la mi ngi noonu mais Khadija, <laughs> la belle souris déjà <laughs> ça va Pod va bien. kii mooy Tafa de. kii mooy toppatoo si biir kër gi ma dara macha allah. wax na ma garmi nga jàmbaar nga macha allah tubaafakalla. <laughs> man daal lenn laa lay wax ma sama copine bii. xam ne xale yi ñu ngi koy xool de. non bu la dara bu la dara gis ko daal làpp laa def mu tiim ko nii pour lépp di leer léegi xam nga moo bëgg nga def ko. Mhm. Euh, la clim c'est fonctionnement bi degré bi moo wàññi douze degré wala vingt degré. c'est bon nii. waaw mi ngi noonu exploité leen connexion bi foowee leen ko. vraiment mais mun ngeen dugg si son bi ah. parce que Serigne John fii day expliqué lu doy waar ci l mais bu ma leen déranger nekk leen à l'aise dégg nga. am naa fi kaa am naa fi kaa kaa laa bëgg sama xol. jigéen kii ndawaayam boobu noonu. ay ma kii man yow daal lekkal dal nga ci de dal nga ci dal nga ci ren ma neexee sax na waar baax daal waa ci loolu de nag mun naa la de kontaan ci yow bëgg ci yow sama xol neex ndaxte xam naa ne moom barki dee ba nga may woo gëj ngaa wàcc lal bi maa la wax lii kii nga àndal coof la de grand coof de lis man ni daal bëgg naa ko si yow nit day am kassin ut xale bu góor bu féroce ngeen ànd daal di jàkkaaroo daal di pelloo lii neex na ma dëgg du neex nag walla waa ba ci lan doomu ndeyu tafaa bi mu doon àndal suba ngoon bu dégg bëccëg lii lan la xaayaan ku dégg séeréer dama dégg naa kii maa ko xam a jaam ki nga xamante ne yàgg na maa may ko fàtte kii yàgg na maa teral di moo tax ma bëgg ko yow tafaa wax na ba yàqu wax na ba ràpp ay musaasam tasaaroo nan déggul tubaab du intellectuel nga ànd ak moom di ko sagal pour la kii américain la ñool na ca kaw kii bu la côté câlin day ànd câlin man je veux câlin bu bu adorable kii bu la kalayoon dënnam ngay yam. xam nga yow kafoo. ban kaf. Kole gis na man taluma classico Real Barça Tafa bis bu ma engagé jibi ñoom ñaar du neexati de. man la Tafa jaral na ma ma ñëw toxu si kër gi jàkkaarloom ndax xam naa ne wax waxkat la waaye waxkat ak waxkat ay ànd ma jàkkaarloom moom pello moom bu ci daw dara yow tubaabee lekk civilisé maay sa géwal yow xëyub kaat kaat ak gontu avion day benn. mais Kole li ñu bëgg a boole mënul ànd jibeeg Tafa ay doomu ndey la ñu. ba ci lan te gis nga kaay wax la góor nag booy defanteeg moom gis nga boo boo divorcé ak moom dangay xool li gën a metti xolam nga def ko te xam nga ne boo sëyee xol bi day dee. sëy ñoom seen booy sax boo sëyee ak boo ñaanee baat boo sëyee seen booy sax ñu dee raw ma taat seen xarit intellectuel lii lan la sax fleur bi ko fi indi moo ko fi indi jo yow xamu woon fleur. yow dundoo woon amour yow sax maa daan saga yenn saa ma romb fleur yi ci mbedd mi di la indil ni ndax dangay sama xarit parce que tubaab nga kii nag civilisé la te na la indil fu la wan la amuram te fleur bu ko indil c'est pas facile. Kole daal man daal lu ma la nëbb nag géwél may xam nga lan laa décidé woon jël sama xol téegu xale góor yi boo leen joxee sa xol Magic Land bii ko yóbbu def ko joué di ci foofu man loolu. attanu ma ko sa xol kii ma gis jooyam yu rëy yi ma gis bëtam yu xonk yi kii xam nga ne da doon jooy. kii jooyul sa xol bàyyi sa affaire yi ngay def na yow xaw ma tafaa dalaa liggéey xaw ma lu mu la def waaye yi ñaar du combat du mas arrêté lii nag. mag yaway wax dëgg nag laa lay wax dangay sama nit. nañ ko xoolaat daal bàyyi say lii. nañ ko bàyyi sa dund yu ngay dund nga dundal sa xol bi ànd xale yu baax yi xale yu xew ci jamono ji man nag aw ma benn temps aw ma benn jot. <laughs> yow kay amoo damay dem nii ndax Sall dafa takk jabaru Indo. Sall Tiwaawan Sall Tiwaawan xam nga bëy ji dafa ñëw Sénégal bi mu ñëwee bënn bëri di jooy ne du ñibbi moo tax ñu xool réunion waat daal ko may fi mu toll daf ma woo ba ma def discours Indo. Golle waaw sa jàng sorewul de. ba ci lan àdduna da ngay dëgër fit capable fii boo amul fit doo dem il faut oser pour partir loin et je ose. discours Inde. maa mini di xaar maa daal xaaraaree rek affaire bi yomb na. xaaraaree na xaaraay yi bëri rek yaa ngi soog a engagé nag. na xaaraaree yi bëri capri bi sama yoon nekku si. fooy defee discours woowu ah këram xanaa damay dem ba këram jàkkaarloog moom defal ko discours amul. bu ah! fort ñu may ma xaar bëri wax jeex. ci ay kaa ngay dox suba ba ngoon sama kër laa jaar nii dem fa xoolaat lu may jéem a capp cappalaat dolliwaat sama. lii kay loo ci dolli mu yàqu. waaw sama waa kër yaa ngi béll yaa ngi tàkkee nu ne. maa ngi tàkkee lamp yi ca Dubaay. waaw damaa ne kii ndax sunu waa kër. Hmm. kër ga mu takk lool dañ maa iñaane xam nga ñoo amoon fi ma fay connecté wu. moo tax tey message ma dama ñëw rek ñëw waaye dañoo ji changé seen code Sénégal booy dem dañ lay soxoree di ma iñaane sàggan nga doxee sans connexion aw ma connexion loolu waaye ma ne wuy ma waa xaar xaar ma may nekk ci kii dafal naa nga xaama jël sama application Orange Money divorce nga nekk de may la connexion xoolal message ñëw na ñëw na ñëw na waaw ah, wuy ma ah, de déedéet tëyaroo ko ñaw jongomaa ko sax waxal waay billaay doo gér de ñaw rek <laughs> yaa ngi bellee nu ne xam la moo waral mm. la ca kaw waa damaa génn fu bees damaa génn fu bees xaw ma Congo laa génn xaw ma damaa génn fu bees kenn xamul foo génn yow daal def nga lu la neex 14 février def nga lu la neex hmm, mënoon bañ a fekk mënoon nga ma ko foqaar rek man damay génn nii Moustapha instant yi xam nga ne xam nga ne dama war a dem kër laa Dieye nii euh, Moustapha mënoon nga ma foqaar rek am na soxla yoo xam ne kenn du ko wax ci vocal ñuy def léegi surtout tiseel ñu collecté ko ma disponibilité dama ne ma foog ma déglu ma mhm. Moustapha man dama ne ci tiis nekk ci naqar jabar ji nga xamante ni dama koo takk ci yàlla farata ak yàlla suma Muhammad nekk ak moom boobu ba léegi mu xëy si na mengal na mes dem yoonam du lekk neex woo xamante ni dugg na sama mbaax mi Moustapha may lalal sama bopp bu tëdd jotee nag guddi gi yàgg lool ci man te may te ma war a jot samba te ginnaaw yàlla yunit bi nit ko amul ko lu mbokkam fii na fii ne yaay sama xarit te bokk nga ñu bokkoon ci délégation bi dem dakki woon ko leen rek laa bëgg nga dimbalee ma ko loo ma mën a dimbalee bëgg naa ko waaye ndimbal ndimbal na ca fekk loxoy borom lii rek laa bëgg nga dimbilee ma ko nga jóg wut jëlee la ma sama jabar indil ma ko sama kër dalal àdduna amul solo. lan fii kenn amul jabar ñun ñëpp am nu jabar parce que jabar boo am àdduna wiiri wiiri da ngay dem mu nga dem. lan àdduna moom ala kule ali séparation day am moom. yàlla na yéex. soxla woon nag sa. adopté wul rek adopté wul ko. Moustapha adop loo miin adopté ci loo bëgg man moom laa bëgg. Moustapha Thiam Moustapha kii yow Thiam lan sama jabar la ñuy def ci sa kër ah wóop wóop sama jabar moom ngay fan ci sa kër gii kon daal li fi nekk di wax ka leew-leew wala ka leem-leemal yëpp nekkati yaa ngi fanaanoon sama jabar eh, eh, eh. ah ah dégg nga ba bu ma taxaw dama ma wax de. Moussa Kim kii fasaw ma ko de. yow kii xalaat ba bu ma ko fasawoon sax nga ne ndaxtaan waaye kii ba léegi eh, mi ngi ci buum maa yor baat ni di ko maye te maye gu ma ko Moustapha yow jullit nga. Moustapha yow saw yaram dina daw. Eh. yow nekkati kuréel jupon bi lay wax nekkati ah mi ngi ci yow tu es un kuréel de eh, ah, bu ma nee eh bu ma nee hoo ma yàlla àtt ak yàlla ma yàlla teg yow barke billahi yàlla ma yàlla teg yow ay eh, xoolal xoolal te tu as rien à dire xoolal xoolal tu as rien à dire laa jabar jàmbur nga jël ko fat ko sa kër gii di ci tegub tànk yow war na loolu war na la yow ii eh, jabar di ma ko delloo ci nee di ma ko delloo ci nee wuyu ma sina bi nga njëgoon kii éliminer ma si xam naa ni man day wax C'est qui Naya. Ah, ok, Naya. Excuse-moi. Bonjour. bien Ça va. yako Tibiti Non, non, je viens juste d'arriver. Ah, ok. Euh, toi, hein? Merci. Ça va bien Naka journée Ça va, bien. Ça va. Alhamdulillah. doxee nga bu fe dama nekkoon ci parage yi. comme boobu ba tey yaa ngi may woo danga ma soxla danga ma soxla. Mhm. ma ne pourquoi pas ma jaax fi benn yoon balaa maa ñibbi. tu as bien fait. Mhm. waaw tu as bien fait jaax fi parce que sérieusement soxla woon naa la trop. maa jàmm la mais s'il te plaît euh, xaaral servir la tuuti collation. kii daa mel ni dafa glandé kii wute nag li ma bàyyi. nee na collation noonu gis naa ko ci euh, que bëgg nga euh, jus de fraise sauté à l'ail. waaw bëgg c'est bon mu nekk nii c'est très bon pour la santé. Merci. ça gère. servez-vous. Merci, Gibi. Merci. Euh, à ta santé. Tu sais, mhm. c'est parce que Fanny, je ne me sens pas bien. Ah je suis très malade. Euh, insomnie chronique là. Et d'après mon psychologue, mhm. bi ma laajee dama ne ko suma kër dafa am ku ko këf kidnappé ko bañ ma ko jox bañ ma libéré. xanaa loolu mooy jamono bi nga nekkee France. non c'est ici au Sénégal que ça m'est arrivé. Ah te ki kidnappé sama xol mi ngi toog ak man Naya tu sais très bien que ni man je t'aime Naya man dama la bëgg. et que Naya tout le monde sait que man je t'aime samay mbokk xam nañ ko samay xarit xam nañ ko ba ci Tafa Touré mila la tàkk tey jii xam na ko. Tafa xam na ko. mais bien sûr Naya depuis que ma xam na dama la bëgg te it xam nga ko mais Naya yaa ngi fooy lu garaaw te sama psychologue li ma wax daf ni ma kii bu libéré wul sa kër di si peu de temps. tu vas mourir prématurément. jamais de la vie bon moom du ma ko seetaan. s'il te plaît Naya libéré ma man li ma la waxoon keroog rek laa lay waxaat man soxlawuma dara dama bugg góor bu généreux ku galant ka nga xam ni tey dafa sincère lu ma joxoñ mu dagg yem ci man fidélité rek laa soxla soxlawuma leneen. Naya est-ce que tu sais man nii di wax ak yow jënd naa. un terrain de cent mètres carrés uniquement pour yow au mètre carré laa ko jëndee. ba kayit yëpp mi ngi sa tur non je te jure. nga ma lu ne. Naya jaxal nga ma lu ne. jibi daa na nan la ñuy def. ginnaaw ba yow foowu. Hmm. te yëfu mat lañ koy def. Hmm. nañu essayer xool lan lay joxe mais bis boo ma trompé wala ma gis lu ma neexul wala sa comportement bi nga ma woon dara change ci. ah laa moom mooy loolu. incha allah doo gis dara metti. yaa ko wax. man maa la wax lii man naa yaa. c'est promis. c'est promis. je t'aime. du ay jooy de yow un deux rek nga jooy. say rangooj daf laa jege. dañoo jooy xaaral ma rangooj lii. balaa maa dem. merci. Jibi gën nga louis sa yaay moom foog ñu seetu. googal la. c'est qui. c'est moi. c'est moi pas tout le monde yow la kan. waaye yow tamit. ah. waaye ah wala Thiam. mais Thiam tu sais très bien que ni heure bi heure sieste la tu le sais très bien pourquoi tu perturbes les gens comme ça. waaw je demande excuse. na nga dugg mais bul fi yàgg ah parce que dama war a terminer livre Molière bi. lay expliqué nii. Hmm. sama xol la ko tibbee ndax gis naa sa ragal yàlla gis naa fonk gi nga fonk diine gi gis naa ne doo wax lu ñaaw doo def lu ñaaw Moustapha Touré bett na ma trop ndax Moustapha Touré mënut jël sama soxna yóbbu ko këram di jabaroog moom kenn nettaliwu ma maam maa dox ba gis ko. am na ci yoo xam ne as gor waru koo def man fasawuma sama jabar. Euh, oui. eh waay ndaw. sën naa di ah di di ma dëgg waay. Camos. Euh, ah eh, euh, xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal. il rek. may ma rek li ne sama xol bi ma libéré sama bopp. lan moo la fi indi woon. Djibson da nga jagatu. ça veut dire quoi. jabari jàmbur ji. non yow tu ne me ah, respectes oh, pas. Oh, xoolal je te xam nga lu mu doon xam nga lu mu doon. yéen ñë yéen ñëpp de. tout de suite. je ne sors ma ko waxee ma ah, génn. kenn du ma traité de poste. man du ma dugg ci kër goo xam ne ami sobe. boo génnul sama kër bal laa lay door. soxna waaw kañ la indi bal indi bal. ça marche te waxal lu la waa bi ah. nattali kattan moo taxoon bëgguma muy dugg sama kër. ay gros mots rek la de booba de léegi dafa mel ni ay chinois koy jàng xam-xam gi mu yore dafa diis. dañu war a jël jël jël jël fu mu laat waaw kay foofu nga génn nag baax na waaw foofu baax na ko sax Charlie xam-xamu ensin la yoon nag Charlie rek non non loolu moom loolu moom njaga dàq non buuba loolu waaw père bu xar xam ne damay dee. samay loxo. gis nga crampe bi ma arrivé suma ma woon nii te yow nekkoo ci kër te jàppal damay faatu yàlla. ah kon de alhamdulilah bi ma fi nekkee. moo tax foog ñu créer solution d'entente li ma bëgg ñu def ko mooy. il faut ñu xool nu ñuy def ndax Saint-Valentin bi ñëw na ah. mooy weeru mbëggeel mm-hmm. ku ci fesalul sa mbëggeel amoo koo bëgg yaa ngi ci kër gi yaa ngi souffrir maa ngi souffrir ñi ñaar ñuy souffrir ñooy créer suñu coalition souffrir régler suñuy problème lenn laa lay wax sama néeg bi nga koy romb ni gauche et droit ñëw fa nga fay fanaan ñu seet lu ñu def. dafa loolu dina diis de. koy diisal. da ngaa fàtte ne man caa mayaguma sama baat. bu dee affaire maa ngi buum di. bu dee affaire baat moo la dee fanaan sama néeg taala sa connexion léegi caa maa ngi waxanteeg moom dana la ko vocal. nga lijjanti sa bopp. da ngay sa bopp rek depuis jour laa ko ne vocal ma ko ba tey jii nii mënuma koo vocal ba tey parewul sax pour may sama baat. dana la may sa baat. mais le temps comme mayagu la sa baat mais ñëwul sa fanaan sama néeg boo tëdd nga tëdd à côté ñuy xoolante sax. si au moins ñuy dialogue ñuy def léegi nañ def la tout ba jaamaas may ma sama baat après ñu xool na la ñuy def bu ma mayee sama baat moom mën nga ñaan si amul benn problème naa la sëyal sëy bu rafet. jaama da lay may sa baat. loolu kay boo si taxawee rek. ndax xam nga tax jaama war la may sa baat. kii dama la koy dee. jaama dalay may sa baat ñun ñaar ñu nekk ndax man dama manqué nga mottali ma gisoo lool sa yaram bi daan mooy nag daan mooy tamit bu fàtte man jabaru jàmbur la non loolu philosophie rek la mais loolu li ñuy def bàkkaar la de damaa nekk ci buum de non moom bàkkaar méttiwul moom moom bàkkaar moom si Tafa man dama nekk si buum loolu bàkkaar la te defal la tuub ba caa ma sama baat rek instant bi ma loolu mooy sama problème. da nga tegle sër wala benn sër la nii. benn sër kese la. bu la may baat cinq heures nii di nga mën fanaan say su bu ma may baat cinq heures cinq heures une minute ñaan si cinq deux ma say si néeg bi. cinq heures trois cinq trois. oui maman. non non man waxuma la. non jeune ne dis pas que par force da nga ko wax am mais jamono ji ñëpp a soxla compte orange money quand même man ci laay def sumay transaction locale yëpp yow xam nga ni man ci laa lay yónnee xaalis kay kon kay nga dimbalee ma ko sax ça fait presque un an ma di la si topp yow tamit maman maa ngi jéggalu yaay booy maa ngi jéggalu baal ma baal ma waaw léegi maa ngi la ko yónnee par contre ma maa ngi waa waa man yaay sama xarit ah sama xarit bëgguma dara loo métti ah je m'excuse maa ngi jégalu ok baax na man la koy yónnee par contre sama yaay laa doon waxal. mi ngi ci jàmm. waaw mi ngi ci jàmm sëy man damaa jaaxle. ah gént démb la nga xam ni. Hmm. te man sëy sama gént musuma nax. Ah lu ma mës gént teg naa ci sama bët bi loo mës a gént te nga ci sa bët. la gént. Mhm. nga trompé mag benn xale bu jigéen. faut jamais dire ça bébé. bébé non c'est pas bien. non non non genre gént yooyu il faut recommencer à dormir pour que affaire bi mën a changer c'est pas que faut jamais dire ça. su la naree trompé man yàlla nekk joué de classe. jamais de la vie. te lu ma mës a gént teg naa ci sama bët. non faut faut pas répéter ça du tout jamais. du ma la tromper. na ah. Naya kan mooy am ku mel ni yow di ko tromper dis-moi. ma jaaxal man dofuma jina jàpp. Naya imagine ba ma lay top booba ak léegi nga ni caax su may loxo ma di la fooy na dama lay tromper. est-ce que nekkul tamit samay rab ñoo leen di topp. soo xaaral foofu arrête na ah, ça c'est des c'est des de Sénégalais faut arrêter. mais damaa bëgg a jaaxle say. je t'aime et tu es l'amour de ma vie ça je te le dis. Hmm. je te jure. par l'âme de ce pays que jamais je ne te tromperai jamais daal nga promettre moo ko ndax man li ma gis démb billaahi wallaahi wa yàlla bu ma la tromper du ma la tromper jamais de la vie c'est su ma la naxee tromper yàlla naa delluwaat Cergy Pontoise jamais du ma ko ah yàlla baa man li ma gis démb bébé boo tëddee nelawal wax ma xale ba moo nduxoog yow ci tee ci doxin ci waxin ci xolin wax ma mm. man naa li ma gis tee na sama xel torop arrête-moi ça hein ay superstition la yoo xamante ni nit ñee ko def seen bopp ba finalement bu jamais yàlla ci yàlla musal kam même hmm? kon baax waxu trompé sax kër gi buñ fi waxat sax waxu trompé loolu bu mu am ci vocabulaire kër gi ah c'est bon n'en est même pas lan nga fi def. waaw xam ne su ma. non non Naaya waxoo laal benn bagage bàyyi bon bi dana xaxas lépp sant ma la fóot sant ma la paase sant ma la xaxas nii bale yow waxoo def dara lépp dina la ko wax a defal ba ci sangu sax dama ni bon bi na lay sang. Ah, de. non mais mais quand même yow def benn effort génnal wàññi s'il te plaît. d'accord xaaral ah mais mais mais non non non non xam nga yow il faut nga xam benn affaire. Mm. tu es une reine. bul defati lii ah. mais dangaa sañse la wax dootuma ko defati yow kay t'inquiète même pas dama xamoon dama bu ma toogee fii defuma dara ma ne xaaral ma. kon dama sañse nii. sañse nga de xaaral ma dama def lu woyof rek xam nga càmmas moo ma sonn ci soo ba léegi. ni mën naa fa ñëw daf ma soxla du genre comme ça affaire yooyu. ba Diamas. mais Diamas man mi fi jógee barki démb. Diamas mais lu ñu fi yàq barki démb moo njaay xas ñu wax lu ko neex lan la lay doyee. non xam nga ak loo fay ut ji bi. c'est pas mais comme ça comme ça ah. il est comme ça. mais woon dem këram di ko wuy ji lu nekk la ñu yàq fii wax ñu lu ko neex génn dem yoonam. mais di ngay xam ni su tey ñoo mel noonu mais c'est pas grave naa dem déglu ko rek ah. man damay dem rek pour déglu ko ah. ma bu fay yàgg noonu xam nga dafa am ay courses yu ma war a def. Mhm. te ak heure bi. Mhm. damay bañ gaa yi teg bu non t'inquiète pa damay dem toog déglu ko mu wax man ko hmm, après dinaa xool lu may lu ma lay wax. d'accord y'a pas de kon maa ngi lay xaar dégg mais bul sa tànk di dugg ci waañ. non man kay dootuma dugg man ci say waaw rek laay dox. ok waaw bon maa ngi woo bon bi léegi dafa am contre temps. d'accord mais maa ngi koy woo léegi mu ñëw. ok tout ok merci beaucoup. kulo kulo kulo kulo kulo Sagittaire Balance Kokkoon Mon amour yaa ngi toog yére bii nga sol de ki ne laa ma ko njëkk sol ci yàgg na muy mooy ki ki ne laa ma déedéet man di jaam borom lan lay dikk way wi rek <laughs> téer dañ ñawar wayi dellu si ñaw yi dellu si waat lii la wa lii la soloon ci kilib borom dënd yi dikk ah waaw waaw yu couleur yu bare la ci solo yu vivant sax daa mun doon sañ seen nag yii borom dënd yi dikk na toj na réew mi pensez quoi au fait kan yi da def sa wen ñu weng après voilà quoi après tout sera tranquille quoi man Thiamas gënoo ma xew yow ëppoo ma fit Thiamas boo ñëwoon gare du nord nga tudd sama tux gars yi dañuy daw bàyyi la fa parce que foofu dama ko toj mhm. dix-huitième dama ko toj Cergy Pontoise Cergy Loro Cergy préfecture lépp dama ko toj tax maa la gën a bandi mhm. mais jaxaloo ma ko mhm. parce que ci sama kanamu jabar nga taxaw na ma prostituée dara fekku la ci pourtant mënoon naa la porter pour diffamation mais du ma ko def parce que man du ma prostituée jibi jibi baat boobu nga dégg tam met la muy jibi man je suis une prostituée ah mais boo def prostituée tax na ñëpp nekk prostituée bu fekkee la loolu métti. non daf ma métti daf ma métti métti suma jabax. wuy baaba ay baaba ay man ñi doon baaba fii sama ruu a bëgg sama ruu moo bëgg lekk bu tiimee lekk day kontaan delloo nga ma delloo nga ma ndar de la première capitale de la Loire lool lal yii nga ma seen ma fii lay defee lépp yow mii fii lay lekke fii lay naane fii lay jàpp fii lay tëdde dara safatuma sama àddina ndax sama njool maa fii ki nga xamante ni nii mooy sama seytaane Tapha Touré na ko doon ñettee yóbbu gërëm. c'est vraiment dur. Aliou yéen na maanaam. mais sans problème mooy Thiamas yow ak sa jabar mosu leen am benn problème. mosu ñu am problème. vous vous aimiez. kii kooku da ngeen bëggoon. te mm-hmm. tu mais lan moo daal kenn la ma fi tàggu. tur bi soo gisee mënuma ko wax Pikine ne tax mënatuma ko wax. Pikine. ah. te doon pikiru ji. du pikiru de Chipring xob Chipring. Chipi. Chipring. Chipring daal la ma laaj trois cent mille. shopping shopping. shopping shopping. ok d'accord léegi. shopping la ma laaj trois cent mille. Mhm. ma ne ko aw ma trois cent mille yooyu shopping mu jub ay bagage am dem. mais xanaa euh, moom shopping yi da kay def chaque semaine. mos ta def shopping. ah mais nga jox ko mu shopping quand même mais nan la nit di yoxee jabar te du ko defal defal nga koy nga koy defal yenn favori ki la wax a juxal say doom di la nabb nabbe di dindi say stress di la maase te du am benn inconvénient mais kooku au minimum au minimum. mais wax nga koy jox muy shopping chaque mais boo ko joxul chaque jour nga koy jox chaque semaine. bu dee chaque semaine munoo ko jox mu dem shopping nga def ko chaque weer. wala chaque trois mois. ya ngi nii te sa soutien bi mu lay traumatisé et damay ragal aussi li daloon Jean-Jacques dal la Jean-Jacques on l'a trouvé mort asphyxié asphyxié complètement mais dafa xaru. parce que jabaram ay soutien gorge la ko bàyyi loon ay ay ay ay string mën nga ci xaru hein mais bien euh, na euh, leen rek laa bëgg jëlal yii nga denc ko man man lii moom mënumaa na ne fii rek mënumaa sori njool leen laa bëgg nga xam ko hmm. dimbali ma li laay wuru suuli ma jotaat sama soxna bu dee mën naa ne à condition que aussi yow it nga dimbali ma parce que man lu la dimbali. parce que man j'ai un petit mais na yem sama diggante yow s'il te plaît ci am. waaw sa problème. Euh, son problème mooy. lan la. je ne fonctionne plus. kuy kooku. doxatuma na ma daan doxe sa tànk yi doxoo. yow kan nga yori bekke Camas li taxoon ma nekkoon góor nekkatuma góor. Camas inna lillahi inna te dem naa fu ne. Camas dem naa hôpital def ay analyse mais d'après liñ ma wax mooy. Hmm. gisuñu dara ñu. yow doo gis dara. yow man rek maa la mën a dimbali. waa hôpital gisuñu dara affaire bi c'est mystique. parce que apparemment Tapha Touré daf ma takk xoola ah. dina la. xala mais si parce que fonctionnaire deux jours après bi Naya ñëwee suma kër affaire bi mel na kànja gunu baxal mais c' est grave Thiam c' est grave. ah Thiam y' a quelque chose. loolu rek mooy sa problème. mais loolu rek mooy suma problème. amoo beneen problème. amoo beneen problème mais est ce que mën nga régler suma problème. mën naa régler sa sa problème. Hmm. waaye leen rek laa bëgg. Hmm. bis bu ma régler sa problème yow. Hmm. na nga fexe régler sans problème man. y' a aucun souci boo régler suma problème ma régler sa problème. ah problème dootul amati. mën ma tuuti. ki ngay wan ni sa jox mën na régler problème bi. allo. Koromako <laughs> na nga def naka Mali bàyyi yéene ci jàmm wuy ma xaalis euh, ba ma la leen orange ma ne mbaa jot nga ko. alhamdulilah rabbil alamin xam nga li ci gën a neex korona ko da nga koy récupérer gratuitement ah <laughs> jërëjëf korona ko jërëjëf yow loo ma mës a defal gis naa ko léegi nag dafa am beneen problème bu ci bu bu bu dellu si ci problème bi loolu loolee nga may defal pour Tapha Touré ñu tee ko ci mu mu yëfam nooy kii ma toogal nii daram doxatul daram marché tul ma bëggoon. nga dimbali ko li laay war a suul yi bosam di dox boole la ko ñàkk doxu Moustapha Touré lépp wàcc ci ci ci Moustapha Touré ah com ah maa ngi lay dugalatal léegi orange mo ay koro ko waay jërëjëf jërëjëf euh, c'est sûr que il peut faire sûrement kii est da koy dindi yow danga bonkal mu toll ni yow looy xool ba doxle wo mais je mais je. da c'est parce que euh, comprendre mu ne en Afrique que ni vraiment ça existe. da ngay jël son xel mii. je crois que mais pour man affaire yi ci cré la am ah. ndeke ça existe bel et bien pour man ci dessin animé yi rek am ndeke na ndekete. waaw y a trop de dans ce pays. Euh, oui ma je vais te dire quelque chose bis bu ma fonctionné ma indi la sa jabaar. déedéet du ma xaar de. nga ni maa koy taal naa bom bi ñu ngi ñu ngi koy liggéey ñu ngi koy liggéey jaaral fii nga dem liggéey lee muy benn liggéey bi nga le ma le d'accord je vais introduire mais dinaa la wax benn de nii nga ma ko dinaa la ko timbaxee ni bismillah di ko dox de gëtë ponkol mu toll yow mooy euh, dina ne indi contrat bi li ñu waxtaan yëpp tënk ko ñu def ko ci këyit ah incha allah ok si jamais bu marché wul je t'amène à la police. kontaan naa nag bi weeru Saint-Valentin teroo ba léegi seetaanoo ma. yaa ko moom ne rek sa jàmm lépp yow la. tàmbali nga ceebu jën lu neex ñu ni dene nga def sa rouge noir pàccal ah sama xel daal na de. Touré yaa ko moom. lii lépp yow la. <laughs> kon alhamdulilah. maa njëkk kontaan si yow. ñu ngi noonu. moo fi ñëw ba tey seetaanoo ma franchement. dama ko sañ. lépp lu mu bëgg yaa ngi fi nekk soo ba ngoon. dama ko sañ <laughs> toog di seetaan moo tax lépp lu may def pour bëggal na ma man bëgg naa moom. naa bëgg naa. <laughs> da ngay nduróog basketteur bi. kan mooy Ndeye Sène. waa booy xoolal loolu loolu sa yónniw ci yow. li ma wax bindal ma ko rek waaye bindal ma li la waaye bindal ma li ma la wax waaw kay waaw kay waaw kay boo ko defee rek duñ sama xol bii bindal sama xol bii heure bu ma ko gisee day gon-goni bindal nee ko bindal ma saamaan moo mën ci soonu waaye waanu moo man di kaw waaye lu man mën mën kaw na ma métul di bu ton ne per batooge yow luy sa yoon ci loolu bindal ma li ma la wax bindal bindal maa ngi ñëw léegi récupéré ko maa ngi ñëw léegi maa ngi nii di ñëw defal ko ca aawala boo xam ko tey Ça va Merci beaucoup. C'est très joli. Merci. Yes. C'est bon. Merci. De rien. Allez, au revoir. Waouh, c'est très joli. Allô, mon très cher. Oui, oui, jot naa ci ah jot naa ci très joli rafet na trop. non c'est le c'est le c'est le minimum. non lii du dara mais c'est très joli. ah bague baa ngi ci biir fleur bi. ok après naa ko vérifier Ok, à tout à l'heure, mon très cher. Merci beaucoup. C'est très joli. Oh là là. Mais lui, tu l'as quoi tout. Demande quoi en mariage. Parce qu'il est temps. Hein? Il est temps. Après tout, boo bëggee ki tàttaakoo ko amul benn njëriñ Hmm? de toute façon waa ji liggéey na ko ah. ma jóg julli ji. Arrangez-vous. Concentre-toi. Fermez les yeux. Fermez les yeux. xale yi seen xeefa tax kenn xàmmewutu seen Evet war sehr. bébé dafa kontaan naa de. gis nga fi ma lay génn. en tout c'est trop joli. mais fleur na suñu la ko joxee da nga koy respirer. Trop bon. Ça c'est bon kay, c'est regardable kay. xëy na neex bu baax. Hmm. ji ko sa xol nag. xanaa da ngaa jënd parfum def ko si wala affaire yi neex. non da day am parfum. fleur yi noonu lay jógee noonu lay mel. neex na trop. fleur yu Nigéria yi la. kii de sama néeg laa koy teg nii dugg rek di jàkkaarloog moom di di kontaan. ki ne laa mën tooy rek li woy ci mbëggeel. man ak yow moom ñu ngi koy dund moom franchement. bu ah. ma xamoon teel a kër caama. chef amu fa woon benn bëri. caama dafa xorom. caama dafa xorom ba yàqu. boo gisee noonu mu toll noonu loolu xorom la. doo gàll la. doo gàll la. yow fan nga nekkoon. jibi lu xew mbaa jàmm. doo du jàmm Naaya. lan Naaya boo ma bëggul da nga wax da naa ma tu même pas. Naaya nekk na yow tricheuse nga quoi. waaw nekk yow nekk ci kër gi yëpp te bëgguloo ma quoi. waaw lu fi andi. non nekk noppuloo ma. waa jibi lan moo xew gaawee ma. Eh, lu toll la Saint-Valentin woo sama traiteur di togg suñuy xeex ma dem jënd samay yéega samay dàll di la xaar ndaa yaa nga ni max ni menteg ni mes ma lay woo di jox ay boîte vocale waa ji Saint-Valentin ngay jooy lii jooy yu rëy yi ma ne ba xam Saint-Valentin ngay jooy jooy. kon dafa am keneen fi nekk. Jibi Seye mag nga mag day def yëfu mag ah yow mag yow chaque jour ñu dund Saint-Valentin. jour Saint-Valentin fan ma loolu laa bëgg a xam. sama kër laa nekkoon waxoon naa la journée boobu dama sonn moo tax dama teel a tëdd fay sama téléphone bañ ku ma déranger loolu jar na jooyu pataay yi. Euh. ah Jibi may wax nga def sa collant bu rouge nag. yow poñe woon nga bis bi de. démb la ak solo. dangaa poñe bis bi. jëbi lool rek ngay jooy. dama la bëgg. wuy ma. li ngay def nii gis nga wàcc daanoo ci gën a gaaw. Mm. man dama ñëwoon pour defi sa achat yi mais tam pour waxtaan ak yow jibi xam nga bu baax am na yenn yi nga xam man dama ko dépassé te dama bëgg casé wu. bëgguma nekk fii ay càmbar cambar gauche droite seet si jibi jibi seet si man noonoo non laa laa doy na quoi lenn laa bëgg mooy bu fekkee soxna nga bëgg jabar moo la tax a jóg yónnee suñu kër ñu maye ñu moo gën lii ñuy def man moom franchement yii moom dama ci nekku mënatuma ci sax nekk ndax bëgguma ko quoi bëgguma ko. Euh, euh, Naya wokk bu daje gestu la. Mm. fan yii yëpp dem ni woon ci loolu laa bëgg ñu waxtaan naaya kër gi manqué wul dara naaya man manqué wu ma dara man yow rek laa bëgg bu fekkee loolu la man damay yónnee seen kër. ah man daal lool laa bëgg. amul benn problème suba suba suba. ma waxtaan ceeg samay mbokk ñu dem ñaani la loolu du benn problème. loolu daal mooy fulla ji. may ma deux minutes de. ñaari minutes laa ñaan maa la ko ñaan may ma deux minutes. waxal gaaw dafa booy dimbali ma. ni yàlla saamaan moo mën ci suunu waaye waane moo di man kaw waaye lu mu mën man man kaw na ma méttul dibu tam na per ba tawge dellu sil jotam dellu jox ma li may jox gaaw man ma dem damaa xaw a yàkkamti mais euh, bëggoon naa la ko yónnee mais il s'est trouvé que ni man dama plafonné. plafonné lan Orange Money. mais bien sûr sa compte waaw. ji bi xaw ma foo ne abal ma sa téléphone. nest pas am nga application bi. Orange Money baa ngi nii kay. application baa ngi noonu. waaw oh, comme ça xanaa xamoo léegi mën nga déplafonné sa compte fi nga toog. ah bon formulaire rek ngay. remplir après ne la nga ne. dama jaxasoo dama jaxasoo naaya boo ma jegewul rek damay am problème. ko dara jaral hmm? man maa ngi fi man xoolal rassure-toi fii yaa fi fees amul leneen. voilà maa ngi nii xoolal. Hmm? déplafonné naa la ba pare. xanaa xamoo léegi kenn dematul fenn. kon mën nga jël sa application Orange Money ubbi sa compte sa compte fi nga toog déplafonné fi nga toog. def li nga war a def lépp ci agence bi mi ci application lépp ci téléphone bi dematoo fenn. jarul ah, déplacement jarul dara ak rek. naa yaa aw ma sa fay lii moo tax bëgguma nga may soxee parce que boo ma soxee rek damay xeex. defal fulla ah? rek ah defal fulla rek. quand même ah eh, suba ma ah, kon baax na. ah mais quand big ah, la bi de moom parfum ma regarde-moi moi je te jure votre ennemi ne marche pas. puissance force courage si visiter l'ennemi la force de Dieu vous retiendra je t'aime chérie dellu sil ngir yàlla dellu ti ma manqué dellu say nabbi nabbee say feem sa wëlbatiku wala nga wax wax ak man ba nga aj say bët lilla dellu sil ngir yàlla boo ma yërëmatul nga nga namm si néeg ba na ma sa mat laa bu nooy nepp ba dimbali ma ngir yàlla yonent bi nga dellu si ngir tamit. nga pare dama ne ndax pare nga. pare gu ma sax waaye nag. Thiamas ma sama baat ma bàyyi yaa ngi may dégg bu baax soof nga torop. li nga jiite ba xamoo fi fëgg léegi koroma ko mën a fen koroma ko mën a fen dëgg dëgg dëgg dëgg kii dem ba ma fa saafara di jógee ba Mali nan ma boo ko xool muy dellu nekkatu yoo day fen yàlla baax yàlla baax bu ko jëlee du ma ko mos a far xam nga sax balaa moo coupé allo allo allo jigéen allo yaa ngi coupé ma petite mouche ku doon woote noonu téléphone <coughs> Wally Seck waxtaan nañ sax lu yàgg nag te nii la baaxee. waaye de wax nga naa ko rappelé de wala. eh Waly Seck laa doon waxal. waaw Waly la. Waly kañ la yore baat jigéen te yëguma ko. kon soxnaa woote soxnaa woote de. soxna soxnaa woote xam nga soxna. instant yi nii da nekk ci accompagnement les francs-maçons fi mu toll dañ ko bëgg ubbi ay ñag ñoo fi ñëw ak ay tuuti chinois ñu bëgg ma former leen pour ñu nekk francs-maçons bon. dinaa ko moom may ma gis ko nii Wally Seck may kontaan jël yaakaar ne Wally mooy woote nga xam ne dama koo yàgg bëgg wax ak moom ma jël muy jigéen. dama ni la chaque grande dom y a un grande dame dans la côté. Wally su ma woowee jotuma soxna sañ am na sañ-sañu jël téléphone bi woote si man maa doon formé ji maay formé Fara Mareen loolu jarul ñu may woowee soxna ngay songu xeer naan sama ñeme woo c'est qui c'est moi voilà aba ah yow waaw déglu ma xool déglu ma rek booy dem man wu ma laa dem waaye xanaa booy dem euh, sama carte daayira doo ko yóbbu te maa ngi ko duggaloon sama biir bourse familiale yi fi ne kon bu génnee ne yaa ko fa yóbbu jox ma sama carte daayira rek sama bourse familiale damay dem. yow lan lay dem sa carte daayira. Ah, mu ngi sa bagage mu ngi sa bagage xool si yàlla rek nga bàyyi ma yow nga bàyyi ma li war a suul yi sama kër gi bëgg nga ko de. man bàyyi naa la man bàyyi naa la. donte ko sama xel a ci waaye bay naa la sama carte d'identité sama bourse familiale ak sa ñaari bulletin de naissance fa laa moom moom laa ko dugal. gisuma sa carte d'identité te bu fi ñëwoon yaa ngi may dégg yaa ko fay rek bay bëgg fii boo fi dëggatee sa tànk billaay dama lay rey. wax de gauche à droite fi dama bëgg nga waatal ma ci yàlla que Wally Seck moo la doon woo te soxna ay dara moo décroché téléphone bi loolu laa bëgg nga leeral la ma ko léegi rang muy gaaw yow laay déglu je damaa tomb damaa lan wallaahi li may waat bi yooyu fan lañ jël peut-être. mooy wali yi La vie de l'être humain. Les êtres euh, euh, ministère, communauté rurale, départementale. La quinzième raison. en Suisse waaw Sénégal kañ la dem Suisse defaraison la deuxième raison à la Suisse. mun na mu may dem sport ñëwaat day. au revoir kay kay kay kay la bébé. yow da ngay tàggu wala da ngay yëgle. Ah, lay tàggu di xam bu ma ñëwee si kër gi ba tey tamit defuma benn activité te temps damay commencé jël poids gis nga ma su ma demee su ma demee si saabu moom yii rek laa fay nekkee di def. Mhm. na nii. Mhm. léegi loolu kase mën nga ko def fii kase ak ma. non xam dafa nànk dafa nank dafa nànk instant yi nii salle yi nga xam ne la ñuy entraîner dafa am ay fausses salles yu ci rax. te xam nga foofu mburu làmb yi dañuy ñëw siglis yi ñuy dawal siglis yi dañuy dem saal yooyu boo fa demee ngay fi xale yoo xam ni poitrine yi ñu yore kenn xamul poitrine nag la kenn xamul poitrine fas la ay xale yoo xam ne comme des vaches <laughs> toog ne déglu damay <laughs> fiir damay fiir xam nga lan la doo mën a dem de ah bébé nag ah, la bàyyi nga dem de. dem de de ah da ngay dem. ah da ngay dem jeex tar na ne nga da ngay dem. bébé kon ni ma bataawee xool ma. waaye bàyyi li ngay pataani. ma bataawee eh, eh, eh, bàyyi li ngay waaye bàyyi sa tournage yi nga nekk waaye. waaw dama pataa nag bi. fan moo pataa ci yow lan nga sant ni moo pataa ci yi waaye looloo baax ci waaye. sama pooj yi dafa rëy. yow xale yaa ngi commencé ñenn ji di ngemb ji pour yokk seen forme yow yàlla dénk li lim la dénk nga ne da nga koy rejeté. <laughs> lii la yàlla jox nii nga ne da nga koy jël da nga koy bëgg

mooy xale bii naa ko bàyyi muy dem di entraîner yi gaa yi jël ko kii nga xam ne formam baa ngi fees kii moom mu ne mu ne ma renaissance africain benn sama kër nii laa ilaha illallah mu ne xale bu mu defee nii man barke ñoom xaa doo fi affaire ah, sama waa jaa ngi noonu sama loo xew la bay woote appel vidéo heure bi tamit. dama xëy feebar sama yaram neexul ci tàkk ku fi ma ne xaaral ma sama géer gu baax gu riis gu am hmm. sutura gi gu gaaw ci man. Ah, waaw d'accord yow man dama laa ragal wuy ma xaaral ma defal la transfert par Orange Money comme ça nga taal ci ah. comme ci comme ci tàqagul eh, xaaral rek defal naa ko. chut yow Collé chaque jour ma wax ak yow yow fii réew mi toll fi nga boo plafonné foofu nga toog mën nga déplafonné sa compte. da ngay dugg rek ci appli ah waaw waaw da dugg ci application bi nga remplir yëpp déplafonné jaratul sax ngay dem bitigu orange waxoon naa la ko bu yàgg ah yow ba mu mat sëkk fi nga toog ngay déplafonné lépp waa Collé wuy ma wuy ma man boo ma woowul woon sax dama la ah. naroon woo na dama la soxla ah, ah jibi dam waa maa ngi kër jibi say nii ma ñëw fii téléphone sone sonné maa ngi ci waañ bi da doon sangu ci biir douche bi boo gisee ni mu dawee ba këf téléphone bi comme trip dip dama tiit man. xale bu man la comme trip dip ma ni waa kii nan la demee nii xaaral léegi na xam lan laa bëgg maag yow dañuy diil. dil bu rafet jëlal sa photo yu gën a rafet yu gën a sexy nag yow xam nga li ma lay wax. nga envoyé waaw kay ma daal di la koy numéro am partagé la ko nga envoyé ko foto yi ba pare naan ko xaw ma la xamoo ma yow daal doxaan ko charmer ko defal lu la neex ñu xool yow xam nga ne man bëgguma du duggaat du la xam mm-hmm. ma nga noonu nag léegi man ma bëgg daal ñu teste xool xam nga tamit balaa ñoo dugg dañuy xool ci lu ñuy duggaat bugguma ture reetaan ñu benn yoon Tapha Touré laay bañ mu reetaan ma moo tax léegi nag maa ngi lay envoyé léegi numéro photo boo yor bu gën a sexy moroomam daal envoyé ma jibi ñu xool lan la lay doxaan ko bu ko may dara. yow dina la sow sama tooroo du mag ndaanaan bu mag bi. bu mu wax de. mu wax. kon baax na. bu dee day doxaan moom. waaw dina validé ndax xam nga ne moom man jong ma laa tarkal la. <laughs> kenn waxatul loolu. waaw may ma ma doxaan ko yow loo bëgg yàlla na man xam naa loolu. moo tax tiituma benn yoon fu ma toog daal déggee la sama xel day dal. amal jàmm. tout à l'heure amal jàmm tout à ah, xam ne koo dogal tubay ngeen ma mi nga xam ni onze mille habitants lañu deux millions et quelques ay ay kii la juga man xanaa dama dof ramas zugolo yi am ci réew mi xale yi nga xam dañ leen ramas zugolo ramas zugolo côté géej gi yépp ñu ramas leen ñu daw tas dugg ci kii di entraîner da nga ciy gis koo xam day toll di entraîner te du ñaq du def dara du ñaq sax naan ndox nii nii nii nii man nekkuma ci loolu nekkuma si loolu. bébé ndox ma ñu ne. sunu ndox. au revoir non alvar pas non bëgg wàññi sa taay. Uh-huh. yàlla defal na la loo xam ne ci réew mi muy musique mbalax. pardon. mbalax bi day day day day day day nit sa toogee taay yam wala yooyu. bébé yow de sport nga ay musique ma la. culturel laa la wax taalaa defal nii posé nañu nii jarul ngay sori jarul ngay sori man engagé wu naa gis nga nii. dafa nii sa loxo waaw dafa nii sa loxo léegi léegi man a yow dañuy dajaloo ñu naat riba papa est-ce que yaa ngi fii non loolu sport doo demoon ci saali du la def loolu nii nii nii lu yàgg léegi nga naan ri non non taxaw ni jël sa daa yëkkati sa daa léegi suñu àndandoo une deux rimba papa yaa ko baax yaa ko baax rimba papa lii bu ko xeeb bébé man lii bu ma def ko foog ma def te bu ngeen demee ñu tëgg leen ay soowu ñag ngeen koy tëb di ci ñamax-ñamax ba ba ba sonn bébé yaa ngi nii sol lii nii ba pare lii du tënk lii moom du problème bu dee loolu mu naa ko baraay ñëwal waa jëlal bi waa jëlal bi defal lii une deux deux trois. trois rimba papa dee ko paax ñëwaatal beneen côté bi. bébé chère bébé dafa métti waay. di sa ansi nga bëgg mu del waaw. jàpp rimba papa rek rimba papa ñëwaatal beneen côté des na dee ko paax bi eh dee ko paax. bébé ma maa ngi dem. tey bàyyi ma dem waaye s'il te plaît du ma fa def ku ma xool laaj sama numéro dama ko ko jox. bébé man damay dem. du ma toogal. je peux pas m'asseoir parce que damaa war a dem. tu veux t'asseoir. juste deux minutes du fi yàgg. deux minutes toogal la bii nag da ngay ubbeeku bii da ngay ubbeeku nii boo ubbeeku ba pare yëgal say tànk. bébé yaa gën a xam ne li mun ma ko def sama pooj ji daa mën a yéeg si kaw yow taaj fit nga. souffle respire désespire. bébé la mooy désespir. mooy nga génn nooy bi ah na koy wañ. pourquoi génne na ne ay ay photo mais mi ngi commencé bari seen photo Oui, allô, c'est qui nga ni dama yàgg di dox ci koñ bi nga may xool de gauche à droite euh, man neex la ah, ni may doxee dala neex bizarre ak façon bi may prononcer aussi téye kii non jamais mënuma génn ak yow mënul nekk c'est quasi impossible mon cœur est déjà pris mademoiselle nga ni lan jiitu ci jàkka taxul nga doon imam non fii église la père bee fi ne non non non non il n'en est même pas question mënuma génn ak yow je suis de joxe naa suma kàddu ba pare am na ku ma nekkal Euh, dama wax a tàkk jabaax wala yow doo dégg waaw maa doxaanantegul ak yow ma génnuma comme da nga bopp mais ñu ngi ci àqiru zaman wala ci fin bi la ñu nekk nii c'est grave jigéen buy topp góor nee naa la am na ku fi ne mais c'est grave. ingénieur ingénieur ingénieur bâtiment bi tey tabax ci koñ bi kër yi rafet yi xam nga papaam mooy chef de quartier bi léegi nag papaam ceeb yi ñu doon séddale dafa amoon ay quelques problème léegi chef de quartier yëpp dajaloo ndax illimité parlementaire leen war a dindi te léegi bu ñu waree dindi illimité parlementaire am di ngay gis xale yi dañuy taal pono yi. moo tax ñu woote couvre-feu quartier laal lii national luñ ko yëkkati wuñ ko mii parce que yooyu te jamono yi couvre-feu yi mais bi bi couvre-feu quartier ñaar rek pour toujours suñu quartier naal mooy quartier bi koñ bi ñu ko wër ak yooyu kër yi du faal tabax rek ca concerné comme papa mooy chef de quartier bi te moo def affaire bi kër yi mu kii rek ñu kii ko noonu ah. moo tax nag dëkk bi tey day tàng tey moom tey moom recromosel yii war a génn moom bokkul ak recromosel yi nga xam ne amoon te dix huit dis sept heures pile déjà salle yi tëj na marché yi tëj nañ ko. bébé eh, yan waaw léegi léegi mu ñëw léegi léegi jot na ba noppi te xam nga te xam nga yow hmm, xaj ku xajul ci yow xajul ci yow bee. toog fii ñu waxtaan. Euh, y a une jeune je ne je ne la connais pas nee na ci koñ bi la dëkk. Mhm. ah man miinuma leen ah, man koñ bi euh, duggantew ma ñoom depuis ma jóge euh, Toulouse ah. Mhm. mais xoolal ma kii xàmmee nga ko. non non kii kanamam waxuma dara de lu mu bëggoon day liggéey wala. non daf ma woo mu ni ma moom dafa làqu suma cofeel. ah comment ça da nga ko suma cofeel mun mun c'est que je suis euh, dama la bëgg parce que ni ngay dox mais nan la nit di doxee nga tombé amoureux ci moom est-ce que c'est logique c'est pas logique ça c'est pas ah depuis quand nit di prononcer nga baax la ci moom comme ça et puis moo ko mun a ma pare naa pour sëy man ko non il faut arrêter parce que la déjà am naa ku ma bëgg ba pare. comme kaay tàmbale non mais c'est grave. non mais c'est extraordinaire man dama xamul est-ce que ci axiru zaman la ñu ne au fond ou bien à la fin parce que là c'est trop grave nan la jigéen di topp mais bu njëkk góor moo daan doxaan jigéen mais jigéen ñi doxaan góor ñi la alors waaw Massamba non je t'ai appelé à maintes reprises mais en vain non non bu ni ma la défense amul amul amul amul réseau la défense am na réseau kay non bàyyi non yow sama nijaay nga te wax dëgg ne xala non Massamba non ma j'ai un petit souci j'ai un petit souci loolu moo taxoon ma la doon woo parce que dama soxla woon rek benn sagaru trois cent cinquante mille francs bu tekkiwul dara ah non non man je non non comme yaa ngi en France te tu as tu as ton numéro orange mën nga ma ko envoyé mën nga ma envoyé xaalis sama orange mu ne y' a rien d'autre ok c' est bon maintenant mën naa la ah. non non fan yii bi ma ñëwee Cergy euh, dama ñëw Cergy préfecture mais yàgguma fa Cergy la haut laa dem mais après si waa Cergy Pontoise nu may woo sax mais mujj ma dem dama dem directement Mantes la Jolie mais dinaa jaax la défense nuyul ma la bébé bi ah, ak euh, yaayam allez ciao bonne vie merci beaucoup ci ma liggéeykat la nag xamul daxaay tàppale man loola ma neex ci ma samba ma samba liggéey rek la xam je beaucoup ñëw nga téye téléphone ah, tamit bébé damay wéet. foog may snap tout le temps téye en téléphone téye téléphone téye téléphone yi ah. loolu sax dama jot benn lettre léegi si prince. kuy prince. prince moom suñu benn collègue la maa ngi xamante ne lu yàgg nag. sa fait longtemps instant yi mi ngi woon Qatar. doon fa jaay xam nga di liggéey mais dafa dem ba mu jóge moo kii ñu xamante xanaa ma nga nekkee États-Unis la woon. Hmm, wala su ma demee da nga ma sa dégg ma la dama dem États-Unis. yow ko xoon de <laughs> yow ko xoon yow kii maa <laughs> L'invité euh, d'honneur. Prince, il m'a fait l'invitation d'honneur pour la grande dîner chez lui de Prince. Pour les amis, une enveloppe de 500 cent mille toute façon, c'est une préparation, mais pas pour la majaz. La reste de l'argent gère. La signature de presse. sama jëmm ji du ma si taay naat saay. <laughs> c'est vrai. li may nekk nga liiree ko nu mu la neexee nii. ah dama dégg tubaab na man damay abrégé rek lettre abrégation rek jarul kii. mon amour. fii euh, dama ñëwoon tey jox la fleur en guise de témoignage de mon le plus profond et le plus sincère. Tu es une femme formidable. Naya musoo maa teg lu ma attanu musoo maa wax lu ma metti lépp lu ma la tere bàyyi nga ko fi ma la yemloo yem nga fa bëgg nga ma ba ma xam ko ba at yëpp xam ni bëgg nga ma de ce fait fleurs dama bëgg nga di ko dundal ni ngay dundalee sama xol je t'aime mënoon naa dugg ci yow. nga mhm. toroxal ma. yàlla taxay. mënoon naa dugg ci yow nga sonal ma. Mhm. di ma dugal ci lu kenn xamul. Mhm. mais dof loo ma benn yoon. xalaat loo ma benn yoon. ci lu ma neex ngay dox. lu ma naqari nga bàyyi ko. lenn nag laa lay wax. rëccuwu ma benn yoon. lu ma duggee ci yow. rëccuwu ma benn yoon li ma jëlee sama xol jox la. sant naa la. gërëm naa la wuy ma say rangooña la jege waaye sant naa la gërëm naa la am nga sama yërmande am nga sama kersa am nga sama complicité lu ma lu ma doon wër daal lépp ci góor daal gis naa ko ci yow sëy laf cat macha allah c'est le minimum waaw bébé xanaa cinq cent mille nga koy jox may def samay préparatif waaw ah, man moom xam naa ne mën nga koy jox loolu moom du sa borom la déglu rek dinaa la jàppale lii xaalisu invitation la. xanaa du mën a yooyu ñooy ànd yow soxla woo maquillage yokk defar say affaire bi jëndoo yére jëndoo dara sa kos bii rek rafet na mën nga koo sol yóbbu ko. yow xamoo ki ma invité ki ma invité xamoo ko. man boo ma jox ko 500000 du ma dem de. non dafa naan ki ma invité nga xamul toogal rek dinaa xool nu ma organiser bu rafetee ñu jéem a xool yow daal bul wax dara toogal rek nga ceene nga déglu ma de toute façon c'est grande manifestation. ami d'enfance bu nuy wax Prince. Euh, maintenant il est très friqué ah. léegi dafa hmm. bëri xaalis euh, malheureusement il vit seul mu ni woon est-ce que week bi du ñu ñëw retrouvailles du genre comme ça parce que gëj nañu gisee ça fait euh, des lueurs yàgg na ko ma buggoon rek ñu ànd fa dem dîner. week bi hmm. week-end de Mhm. man daal xam naa na la ñuy def. Mhm. comme diine la. Mhm. bàyyi rek ma teel ko préparé. ñu sañse lu baax ànd daal di dem. loolu pourquoi pas c'est avec un grand plaisir. merci beaucoup merci beaucoup xam naa ne bëgg naa na baal ba moom bu nu bu nu kenn dàqal la ah. baalul la. mais bien mais foofu dañ mais c'est comme ça mais kër presque ñun noonu la ah. waaye ah. depuis enfance temps wu euh, baalu beñee ak <laughs> euh, euh, mbuusu bisap nu période yooyu la daan baal. Ah. mais ta yi kenn dàq ma woon fecc je te mm. jure. yii jibi sabal dina doy waar. surtout salsa nii. waaw oh là là. salsa moom gars yi daaw ñu ko xëccoog man piste bi ñëpp a koy ak man. yoon bu oh maa ngi fàttaliku ndeysaan Pape Seck dagan na ndeysaan. yaay ah. suma yaay booy. oui baay suma baay booy. Oh. waaw yow. <laughs> après nga def ci toog xam nga ko taramut taramut taramut taramut taramut taramut taramut ma sawi ta ñëw ah bois bi ngay. ban bois. kii bois na nga ñëw di fëgg lan ngay fëgg ma eh, fontoo de. Ah, xool xam nga yow yow mi ah, kay nag ma wax la. lan la nga lu mu doon. Moustapha man damaa sonn sonn naa trop sama jabar nag doo ko yor boobu ba nga teg ci sa tànk ba nit doo ma ko jox yow Moustapha xanaa doo jullit jabari la laa taqara boo zina xanaa déglu loolu ñaata ustaas ñoo fi warate laa taqara boo zina déglu woo Pape Anne

taxawal correctement réglé. ma dem jëli sa jabar indi ko. moo gën de moo mën a am jàmbaam di jëme. moo moo mën a am jàmbaam. te loo ca bañ a ko ci. xool bu set. naaw looy ngay naaw. da naaw. yaa ma dàq naaw. looy naaw. man ma may jox sama jabar laa wax.

waay wal caa jugal caa dafa ture caa mas jugal. allo waa Sidi Diouf waa déglu rek Sidi Diouf xam nga laa bëgg fi mu dama nekk ci guerre l'amour mu nekk lu sérieux Sidy Diouf dimbale ma ngir yàlla nga wutal ma xale bu neex xale bu baax xale bu rafet xees waaye xam naa la waaye boo cees nga waaye xam naa la ah Rihanna Njaay waaye Rihanna kañ la sant Njaay ah photocopie mais teg teg ñoom ñaar teg teg ok Diouf non amul problème naa la dugaloo dara Orange Money frais de déplacement moom logement am réseau reeram lépp je prends en charge mais leen laa bëgg rek xale bi daal na mel na laaxu nettari bi waaw ma tooy xep waaw kon baax amul problème dinaa la déglu Diouf ñu ko bàyyi waaw seet tamit sa gétt gi rek tax tànnal sa gétt gi benn rek waaw jaajëf amul problème jaajëf nuyul ma Ousin waaw nuyul ma Ousin Ousin tamit gisoon naa na moo ànd xale bu baax ah da nga barkeelu ba noonu ah déedéet kon baax na seetal ma ci gétt gi waaw baax na incha allah xëy booy booy de lu ñu yore bala ñu koy jox kenn mu tal kër gu nu fekk rek peinture ko à ah, à ah, l'huile ah, à l'huile ko ba pare nag buñ ko lasawul dañ ko à huile

prince. Eh, eh, eh. ça va. kontaan naa kontaan naa Djibi. merci ñëw leen. ok franchement woote neex na mais woote ñu wuy si la moo ko tax. mais mbaa ñun tardé wuñu. déedéet déedéet déedéet. tardé wuñu ah lii dafiy jiitu. oh lii la c'est très joli. bébé toogal. toogal. ba tey. bon plus ou moins peut être bi ma ñëwee Sénégal fii j' étais. ok xam euh, nga dama gën a calme quoi. mais calme nga. ah mais bien sûr. je suis impressionné. way dëmb la rek. mais kontaan naa ci yow ah. alhamdulilah conteneur bi jot naa ko comme il <laughs> mon ami. <laughs> Eh, eh. toogal Thiaba. prenez place. ii Thiaba mun naa la. mais ci ne. yow li ma ciy déggante gars yi sax fekk la ci. nekk ci xat-xati jamono rek. ok mais c'est bon. Djibi. Euh, Thiamas. yaa ngi ci jàmm. Euh, presque. Euh, naa yaa ngi toog waxoo ma ah. nga ne woon man nga invité ak madame. Oh. Djibi. pour ñu indi problème. c'est juste que ñu def pour toog ensemble parce que gën ngeen gisante. c'est vrai mais Thiamas ça fait longtemps. Khoja Baye pardon. kan mooy sa baay. nga xamoon li gën a métti ci am ñoom tu euh, fex. dama la mën a jur de vieux con. ça dama la am un bail. bail gëj naa laa gis. ji bi maa ngi yow boo boo gisee dara yàgg. foo nekk léegi. maa ngi Abu Dhabi. kañ nga jógee Mauritanie. non musuma nekk Mauritanie nekk. Abu Dhabi moo supérieur foofu laa nekk. ok mais Aline euh, tu m'as fait la surprise ah. oui xam nga rek. Ça, ça me prépare pas ça, hein. Vraiment, hein. Ça va, les petits mouches. Aline, ça va? Tafa, non, non. Ah, mais de toute façon, tu m'as dit que tu m'invites. Après, je suis fait nombre de personnes. Non, quand Tafa, xam nga ku nekk man maa la wax loolu pour kooku boo fi dajee. surprise bi ñu toog xam bi nice. ah may dem nga loolu. madame Tita Neuf jógal. jël sa sac euh, ba nga xamante ni da ngay invité ay pingouin ci euh, ci diine bi ci moom fallait ma la dégg. non non Djibi yow tamit ah Djibi may ma loolu bàyyi leen li ngeen i def yéen ba léegi ah man pour man changé ngeen moo tax ma dajale leen pour ñu xàppi foo avancé ah may. de toute façon man je suis nombreux. ok je suis resté toujours si même. mais oh, yow. pas de problème je gère tout les conséquences. ok mais à part loolu ana sa couple. Bon, je fais un réservoir là, bientôt ils arrivent. Métémateur. Ok, doy amul problème. léegi yow yaa jàppal ni yaay sama invité surprise. <laughs> merci. ok Tafa happy. merci happy. Thiamas eh, happy. mais sinon naka Sénégal. Euh, ça va y a beaucoup de bouki. ah mais aussi y a beaucoup de pingouins au Sénégal. salle des traiteurs. naa ko muy directeur bi nga xamante ni lu nu laalu baaxul ma woo leen pour ñu ànd bëggee ñoom ñu servi yéen du ngeen laal dara ñoom ñooy def lépp lekk rek. balaa tabax sa kii bi di ñëw waaw. waaw. bëgg naa ko gis tamit. comme ni ma gisee yu gars yi. il s'appelle Rihanna Ndiaye. Rihanna. Ndiaye. ah macha allah. Je ne parle pas de toi. Non, mais je ne ah t'écoute même pas. Moi aussi, je ne t'écoute même pas. Tu ne parles pas avec moi. Moi, je ne t'écoute même pas. Ok euh, Voilà. Nous sommes à la dîner. Là, dis-nous là. Nous sommes à la dîner. Ok. Reste tranquille, reste tranquille. Tiens, grave, grave, grave. Oui, je m'excuse. Euh, prince, je m'excuse. Ok, Balnala, mais pour moi, Amad. Ça, on parle pour un <laughs> coup de Non, non. Ah, d'accord, merci. Alors, ma petite mouche. En ah, dièse arrivé. Ah, merci beaucoup. Aline, ma petite mouche, il est parti arrivé. Ah, ah. Merci, Mais la porte s'est éclatée d'abord. Allez, rentrez. Merci. s'il vous plaît euh, Thiamas mhm. euh, euh, dama bëggoon def benn discours voilà merci beaucoup en votre présence. Mhm. je vous remercie tous. Mhm. Prince merci de l'invitation. j'aimerais juste demander à cette très magnifique dame ah, en mariage est-ce que Naya pare nga pour sëy ak ma. oh félicitations. eh Tafa encore encore. di nga simi sama tëb ah. eh déedéet. kii téye leen quoi. eh Tafa. yàlla. Hmm, hmm. xoolal xoolal ni yow. yow yow say ba sa sa bopp dëgërul yow loo gën di gis ko jàllal nii. Tafa lan la. dañu jugé ba pare yow man xiyam war. non Tafa lu xew yaa ko fay. yaa fi yow na xiyam yow. waaw bu fekkee da nga feebar ñu dem hôpital. allahu akbar. et eh, lii rafet na tàccu leen. Oh, oh, félicitations. macha allah oh. macha allah. félicitations. oh moi aussi je t'aime beaucoup et je t'aimerai toujours. ah jibi surprise bi nga ma defal ci kaw surprise neex na ma ah. ñoo génn kër gi yow ñoo dem. monsieur Touré avec tout le respect que je vous dois. man bandi laa de dafa naa. non weddiwuma loolu bandi nga. weddiwuma loolu naaya. Touré bu fekkee dangay jaay bandi dama ne bàyyi bandi yaa ngi nii jëkkëru bandi yaa ngi nii. naaya man nag eh, ma ma wax la naaya même bu fekkee mi ngi ci sama biir kër. ni nga dugg seen nii ça ne me pas du tout neexuma au minimum nga xam ni suma kër nga dugg nga wax ma nuyu solennellement et d'une manière vraiment sincère. et gis nga Touré euh, j'en ai marre jàpp la di la patam patame di wekki sa karaw bakkan yi benn baaroo benn j'en ai marre moi. def ko en gros ba xam. Touré moi. Naya. ah Touré. Naya sors de chez moi. eh eh eh waaw eh, eh Naya. eh tu sors de chez moi tout de suite. Eh, bébé lan ngay def ci sa portable bi sànq ba tey. bébé. Hmm. da nga maa demandé en mariage monde yëpp gis ko. Hmm. xam nga nag jamono ji amatuma benn jot. xam nga sama tonton Alioune bu nekk euh, France moo ma yónnee xaalis bu bëri ne ma waajal xew mi ku nekk ak may yónnee orange mu ne nan ma waajal xew bi waajal xew mi ñu ma mën a wax ak ñu ma mënut a wax. yow nag da nga baax ah. kenn mi mbokk c'est comme ça. yaa ma teral nag àdduna yëpp gis ko ci say mbokk la plupart du temps doo sonn doo jaaxle. yaa ma teral àdduna yëpp gis ko de. non non c'est le minimum toi aussi. waaw hmm, lu xew. damaa bloqué sama compte de damaa dugg trois fois sama code affaire bi jàllul. xanaa da nga fàtte sa code. damaa juum. dem agence ba balaa muy wàcc. ban agence. mais agence Sonatel bi. yow da nekk ci forme xaaral ak sama application Orange Money. Hmm. foofu laay dugg. daal di débloqué sama compte ñu daal di dem nga bëgg maa yóbbu. agence c'est possible. ku demati agence ba rek yow la neex ak bëgg rang. application bi lépp loo bëgg mi ngi ci. déggoo li ma la wax fi ma toog mën naa ci. installer sama compte mën naa ci déplafonner sama compte mën naa ci débloquer sama compte. super c'est bien c'est bien. c'est bon ok c'est bon. oui on peut euh, foo jëm leen seen yi. non tu sais euh, euh, depuis que ma demandé ko fiançailles mu nangul ma ko dama ni ko doon def mariage traditionnel bi à Ndiaw Sire. comme ça voilà comme ça Cheikh Ahmed Fall takk bi. Mhm. tu vois ce que je veux dire. Mhm. ensuite ñu dem Paris euh, maire Paris bi rédiger moom it nangu suñu mariage man moom ensuite. Mhm. ñu revenir à Dakar. maire Dakar bi moom it nangul ko. comme ça nous aurons trois papiers de mariage. yoo xamante ni c'est valable. moo koy tënk parce que c'est ma vie. Mhm. tu vois. Mhm. bëgg naa àdduna wër nga képp xam ni c'est ma vie. Mhm. tu comprends. si si. voilà xam nga li ma gën a neex si discours. sa hmm. ndaaj da fàtte démb. sa diggante ak hmm. wax dëgg yàlla à l'époque la woon. gis naa sa kàddu yaa ngi koy benn tuut di ko bamtuwaat man xam ne couleur bu yàgg la. sama diggante ak. ensuite euh, mi ngi tudd. yaa ngi dégg te li ma gën a neex ci yow. jibi say maam dana ay jaloor yi ñu ko fi def. yu def ci réew mi Georges sama ma koy indi ci réew mi Michel Guigon nga xam ne moom lañ déggee pharmacie Guigon gii moom lañ sama ma koy indi ci mu taxawaay woo xamante ni nii ah da ko taxee nag envers moi fexe nga ba sama jabar dellu si waat samay ba nga toogee ci diine bi euh, euh, génn bàgg financement yi nga xool ku mel ne jàpp nga ne ko jàpp nga ne ko je t'aime ah kooku xool jooy na. waaye nag waaye nag waaye nag Naya da nga ko mérité waaye bu ñu la nee Naya sa xel day dem Mali ani soxma Ibi Dieye ay la doron di bambara pire nag. ah cam son ba lii say maam yàgg nañ ko def. Ah, yooyu say say maam yàgg nañ ko def. jeeg jàmm ak njariñ nag am nga sunu jàmm am nga sunu njariñ tax xam nga ne tax ko gërëfaas yoo xamante ni day day wër di ñampe. ji bi li matu ko ma cent franc. incha allahu rabbi bu nu wàccee dinaa la jox cent franc. naaya. suy baa ngi noonu. buub say bagage nag dem yomb na. waaye fexe faa toog. fexe faa seey. ndax sa sa sa wane na ko sa baay wane na ko ci réew mi yaa ngi dégg. ci àdduna. mun di tubaab naan foutaise. mun naa yaa mii ma yoroon. naaya xëy na sub takk na bagaasam dem na jibi sëy takk ko ma toogati jëlati sama xarum bali bali di yar xale bi xëy suba ànd ak caama dem ma ne xaaral ma defante def sama réservation femme livraison bi ñëw xale bi mel ni ku jóge pàq ñu ko loxo mais nag capitaine Zimbabwe léegi daal fi ñu toll nii sama Saint-Valentin bii xaar ma def ma aj ka ba beneen te yàlla tax sama biir xol jàpp ni Saint-Valentin amul ren dafa tombé mbas sax mbas bii moo ma dal. li ku moom lii. maa ko moom. Ah, <laughs> caa bàyyi ma bàyyi ma yow bàyyi ma. <laughs> attention dama lay fental waay. Mhm. doxal. Nana ye, nana fulo de balde balde na. Nana ye, nana fulo de balde balde. Nana ye, nana fulo de balde balde na. Merci Diama. Nana fulo de balde balde na. Nana, nana fulo de balde balde na. Merci. Est-ce que duñu arranger kii? Nana fulo de balde balde. Merci, merci. Merci, Chamas. Merci. Merci. Merci, Chamas. Merci beaucoup, Chamas. Merci. léegi ceebu jën bu fanaanee ñaari fan bomb la. du fanaan. buy fanaan ñaari ci kër day bomb lay doon ci kër gi gis nga ñun sunu maam yi bu njëkk bu ñu daan xeexi dañuy togg ceebu jën def ci sipax paañ ñu ne dina nawaay ñu def ci def ci li nga xam ne mooy bëgg am suul. gisoo tey yëpp laa defaraat. dañ koy ub ak ki ci kaw. fan ci kaw frigo bi wala. waaw ci ginnaaw lañ koy aj. suñu ko ajee ñetti fan. boobu tubaab yi lañuy xeexal te tubaab yi am matériel te ñun ñun yoruñu woon matériel. kii boobu ñun yoruñu frigo yoruñu dara. ñu jël ceebu jën bi remplacer ko bombe Africa. mais pour mu nekk bombe dafa am état par état ginnaaw bi mu ñoree ginnaaw bi nga ko tegee ñetti fan ñeenti fan day transformé wu génnaat ceebu jën nekk bombe parce que composition yi yi ñu ko composé la. ceebu jën moom du ay fo. moom danga ko mën moom tey moom damaa lekk ba daanu moom waaw surtout ni nga ko roofe bon baaraam nga roofe mon waaye montre ma empreinte bi laay xool bar nga ci mbii nga war a roofe si ceebu jën ñàkk am na lu mu defar ci peuple bi am na lu mu yàq ci peuple bi ah nuru buuj ceebu jën koy indi di ci lekk lu bari <laughs> lu may wax damay étudier ci léegi nag man sama jëm bopp dama ay fleurs yoo xam si man la nekk. Ah yooyu après yow dag ma koy taayal. dama waaw da koy pompe nettoyer ko gabat fleurs yi. bàyyi ma fleur yi. waaw fleur yi ndax indi fleur da delloo ñu ko ci fleur. ma ngi noonu. say fleur bàyyi ko ko man. gazette gazette gazette leen. gazette ko sisote ko. arrosé ko. waaw ko ba mu baax defal ko ba mu baax yooyu samay fleur la ba. bàyyi ma waaw naa man du ma jëndi fleur am na ay fleur mi ngi doonu. bàyyi ko lii rafet na kontaan naa Tafa. alhamdulilah. billaay kontaan naa. xaw la laa a wax. du dara du mbëggeel du dara. suuf la def xorom guy mu ko laaj mu ne ma aw ma. daa xorom. lii de ba ma ko ba may dalee sëy ak moom ba tey. moom ma 10 ans de mariage ba ma amee 9 ans lañ ma ko may. Mm. ba léegi nii billaay mosuma jox lii. mais amul sensation. gannaaw xam nga mbëggeel dafa am couvre-feu couvre-feu mooy première tentation bi ngeen njëkk gisante yéen ñaar loolu ngay yëg mu koy yëg loolu tubaab wooyu couvre-feu su ma la waxee dara du mu gëm de dañu doo a gisante yow sooy doxaan jàll doo ko jox benn affaire bu romantique tàngal bant danga ma juróom xoolal may jaay romantique man xam nga romantique ma delloo ko ko rek. moom dafa romantise. romantise ak romantise bokkul. jugóob tuuti ma jooy. Ah, ak kudur fa ak kuur fa it bokkul. waaw ah, fii bu ko laajee trois cent mille su ma ko joxul sax man daal bëgg naa la. ayca naa yaa ñàkk na. ñàkk gason yi rek boo si paree rek nga jublu si maa ngi reposé ma ne la bàyyi ma ak say say fleur yow. Hmm. say fleur bàyyi ma moom. maa koy defar ba mu baax dama bëgg nga waatal ma ci yàlla que Wally Seck moo la doon woo te soxna ay dara moo décroché téléphone bi loolu laa bëgg nga leeral la ma ko léegi rang muy gaaw yoo lay déglu je vous jure damaa tomb damaa Det var jo Det var mor. ne waat ay salaamaaleykum. ma petite mouche. je vous jure. dama tombe dans les insectes. sama maam yi nekk côté Nigéria ay wàll yu nekk Nigéria la ah damay waat di di tànn ay maamu jàmbur te am sa ay maam yi nekk Nigéria di ay walli te xam man musuma fen jëm ci ñoom ñooñu boo waatee ci lu ay dans un cercle yooyu wali kaamil ki bois bois bi ngay. ban bois kii bois IBM na nga di fëgg lan ngay fëgg nii yow. luy bois <laughs> la princesse de la reine ou la Massa je la euh, eh, eh. ah. ay ah. Eh, s'il vous plaît madame est-ce que mën nga toog. je t'aime je mais da ngay toog tilem. te nga toog merci. sama orange ay caaxax rek la mën a mujjee ah. dara bettuma ci lii. Euh, de toute façon euh, dama leen bëggoon wax. Hmm, ci seen présence. que dama bëggoon demander à cette magnifique dame. Ah, <laughs> que est-ce que pare nga pour sëy ak man. oh. bàyyi si ma tooy yàlla béy si ma. dañoo fexees encore Tafa. dañoo fexees Tafa. su teen su ta doom. Tafa. Tafa. rêve rêve regarde la zone. Tafa ça va. su teen. ok vraiment bisou. daayira bi dafa jeex wala. kenn daayira la ci diina la ne. Tafa nekk la. Euh, s'il vous plaît. Euh, s'il vous plaît. Euh, eh, eh, eh, mais bàyyi leen ko rek bàyyi leen ko. oui mais pardon après dinaa changer plat. non ñëwal nii kaay. kaay nii.